formation sur mesure. salaamaaleykum mbokki internet Dakar 24 info ñu ngi leen nuyu di leen ziar te ñaan sunu kàddu fekk leen ci jàmm di ñaan képp ku leen nar jàmm yàlla nag sunu rom jàmmal ba mu jàmmal leen di am mbégte jàkkaarloog yéen ci seen émission spéciale Korité tey ñu ci waxtaanee lépp lu xeetoo ci feetu religieux yi am ci biir réew mi waaye laata loola damay nuyu di ziar di baal àq. sama naataango bi nga xam ne moom laa bokkal plateau bi soxna Anita Thiaw euh, di bàyyi nga nuyu mbokki internetu Dakar 24 info yi. maa ngi lay fay mbay mbay Badiane di la baal àq di la baal aussi salaamaaleykum ami internet dakaar vingt 24 ñoo ngi fii tey ci seen plateau spécial Korité di am contentement di ko bokk ak yéen. Euh, jërëjëf laata ñu dugg ci biir waxtaan wi dañuy ñaanal mbooleem kilifa diini ci biir réew mi. jiite sunu xalif généraux yi sunu borom yàggal leen te wéral leen ba yéene ji ñuy am ci biir réew mi sunu borom defal leen li koy seenu njort mm. waaye di bàyyi xel ñi nga xam ne ñu ngi ci biir prison yi di leen ñaanal sunu borom jële leen foofu ñu nekk bañ dellu fii si ñun waaye di ñaanal ñi nga xam ni ñu ngi ci hôpitaux yi sunu borom wéral leen ba dellu si leen ñu nekk seeni activité waaye di ñaanal mboolem réew mi fu waaye bu mën a nekk ak ci loo mën a nekk sunu borom dafa la taw tawféex ci barke Sidna Muhammad alayhi salaatu wa salaam eh, soxna Anita tey ñuy waxtaanee fête religieux yi. Mhm. xam naa jigéen moom booy waxtaane moom feet yi moom li nga koy njëkk laaj lan moo tax ngeen bëgg àdduna <laughs> ba fête bu ñëw rek ngeen def ci loo xam ne day jéggi dayoo. bëgg àdduna bëgg sa bopp la. bëgg àdduna bëgg sa bopp la en du yàq parce que bëgg sa bopp la ndax nit si sa comportement ak ni nga mel si la nit di respecté. Mhm. si la nit mën a joxe cër. si nga mën a personnalité bi ngay bi ngay bi ngay bi ngay am. Mhm. si bëgg sa bopp. si la loolu yëpp ëmb. Mhm. loolu moo tax mais bul wax dañoo bëgg àdduna. waaw bu ma nee da ngeen bëgg àdduna dañu gis ne bu fet jotee. Mhm. ni ko jigéen ñi waaje bokkut ñi ko góor ñi di waajee. loolu mënul mënul bokk. lu tax parce que da nga ne jigéen ne góor. jigéen moo gën a bari ay préoccupations yi nga xamante ne moom loolu jigéen moo gën a mën a toppatoo boppam. góor mënut a toppatoo boppam. mën na toppatoo boppam. mais du mën a boq parce que mënul yam góor jigéen nu mu war a mel. ak góor parce que góor parfois mën nga gis góor nu mu mel nii nit ñi duñ ko lijjanti. parce que dañ naan ah góor la loolu seen yoon newu ci yenn yu bëri duñ ci nekk di ñeent di sonn parce que dañ naan loolu perte temps la góor ñi loolu la ñuy wax. ñëw di soloog di dem yenn yi am na ñoo xam ne duñ ko def parce que dañ naan perte temps la alors que jigéen mu ngi nekk di toppatoo boppam dama il faut que ma def lii parce que kii diw kat. il faut nga make up il faut nga. il faut nga make up il faut nga puudaru. il faut nga jënd cheveux il faut nga maquillage il faut nga sëbowu il faut nga il faut il faut il faut est-ce que loolu tamit du coono ci benn fan est-ce que yooyu yëpp ngeen teg seen bopp est-ce que du coono. benn côté d'accord naa si ak yow coono la. Mhm. ndax euh, doo jël benn jour. Mhm. nga yàq ci deux cent mille wala deux cent cinquante mille. Mhm. loolu moom c'est inacceptable. benn jour nga yàq ci deux 000 te 250 000 da lay leer que di mën yi wala 100 000 francs yi. Mhm. li ci des nga épargner ko ndax yeneen soxla dina la ci mën a fekk mais jigéen ñi la plupart duñ def loolu. ñoom yàq gi la ñuy gën a lii ak defaru gi ak defante gi moo leen yóbbee ci loo xamante ne dañ naan diw am na nangam diw def na nangam mhm. diw lii la na la sol wala lii wanewu gi moo leen ci yóbbu ak concurrence bi mhm. moo leen di indi ci leen yoo xamante ne mooy loolu euh, dañuy gis ne fet bu jotee marché bi day fees dell te li si ëpp ay jigéen la ki xale da gis gis ñoo xam ne sax wóor gi dong moo leen ci neex parce que loolu tamit du am jot am jot bu bëri la kat wax dëgg fa yàlla ndax boo boo amee boo nekkee ci feet feet bu jub si nga war a am loo war a def am préoccupation yoo war a loo war a loo war a yoo war a occupé tal nga leneen lu dul di wër ci marché di taxawaaloo yooyu mhm. ndax jaru ko am na loo xamante ne mën nga dem seen kër dem liggéey ji ko wala dem jëndi loo xamante ne farata la wala def loo xamante ne farata wala dox farata moo gën di wër ci marché yi di wër wër parce que amul sens. Mhm. amul sens. xam nga tey tamit mënoo wax feet te doo tudd poche góor ñi. Mhm. ndax góor ñi dañuy ñoq lu bari yóbbu ko si jigéen ñi man li mu si gën a jaaxal sax mooy da ngay dem jënd tissu yu bari. Mhm. ñu ñëw ñaw ko ndax dafa am bu ñu mag ñi daan wax naan. rafle ñu bari jàpp na rafle mooy ñàkk yére am kilifa gu ko tekki ne rafle mooy jënd lu doy. ñaw ko daggit day gis ne jigéen ñi li ëpp si jigéen ñi góor ñi moom day ñaw lu jot. Mm-hmm. ay sabadoor ay xaftaan ay grand jigéen ñi lu ci ëpp si jigéen ñi ay daggit la ñuy ñaw lan moo tax bëgg daggit. <laughs> bul ne ñëpp a bëgg daggit. non de non maas moo noonu gi. Mm-hmm. waaye tey bu dee cent personnes. waaw quatre-vingts personnes yëpp ay daggit la ñaw. xëy na tam ñoom loolu moom moo leen neex wala loolu loolu la ñu mën a sentir seen seen seen seen sañse. Mm-hmm. am na ku nekk noo xamante ne bu dee da nga nga bëgg fente wala genre comme ni nga loolu nga bëgg a wax. ñoo xamante ne dañ ay daggit. mooy daggit rek <laughs> Mm-hmm. parce que ci la ñuy gën a mën a sentir seen bopp sentir que ne ñoom san sa nañ mais am na ñoo xamante ne lu jot moom moo leen moo leen moo leen lii parce que bëgguñu sol yenn yoo xamante ne dinañ leen xool di leen joxe yenn yenn impression yi. Mm-hmm. loolu moo tax. xam nga aussi tamit mënoo wax fête te doo tudd marché. Mm-hmm. bi nu mel. marché bi barki démb rek def naa ci reportage. bu am solo sax. waa man gis naa sax am na si ñoo xam ne <laughs> ah tarkaal am na am na lu ñu la tuddee daal damay bàyyi ba fin émission bi nag. ay ah, ma ma door koo génn <laughs> marché bi gis naa que ni euh, loo xamante ne am na phénomène boo xamante ne man gis naa ko ci Sénégal te neexu ma. Mm-hmm. da ngay gis que ni chaque événement bu jotee. wala mu des deux jours événement trois jours événement parce que nit ñi xam nga duñu am xaalis. Mm-hmm. dañuy ba deux jours événement trois jours événement mën a am xaalis. Mm-hmm. mais da gis que ni commerçant yi dañuy yokk prix bu baax dañ koy doubler parfois sax. dañuy jël prix yokk ko loo war a xamante ne 1000 francs la war a jar ñu jaayee ko 3000 francs te loolu jaaduwul c'est inacceptable loolu rafetul. waaw jël prix boo xamante ne. loolu arrangé wul nit yi te baaxul ci ci ci réew mi. day mm. delloo développe day delloo day delloo économie euh, ginnaaw. ginnaaw mm-hmm. te loolu wax dëgg fa yàlla président war na ci jël mesure yu ferme. non président jël na si mesure. jëloon na si jëloon du commerce jëloon na si mesure. Ah. ministre du commerce jëloon na si mesure. Mm. mais mesure la nit ñi. Ah, respecté wul respecté wuñ ko. Mm. mais bu ñu doon dafa am ay sanctions yoo xamante ne président day wàcc dugg ci butik bu nekk. du nekk président en tant que tel mais ñoo xamante ne lii la ay ndaw ay ndaw président dugg mm-hmm. xool prix yi nu mu mën a jaar mm-hmm. ñu xool ndax li adéquat na ak ñoom lu ñu wax ak lu ñu santaane mm-hmm. ku ko deful ñu teg la ay charte ñu teg ci ay charte wala teg la ay ndodd sa kaw di nga ko bàyyi waaw di nga ko bàyyi waaye nag euh, ñu gis ne fête bu jotee comme ni nga ko waxee marché bi metti na góor ñi joxe nga gis jigéen mu dem marché jënd takk jënd aju na moto jënd mami jënd jimbo yooyu yëpp mu jënd. Mhm. benn cafkala est-ce que tamit loolu du yàq. yàq la benn côté ndax loolu da doy sax dafa baaxul ci sante mhm. lu ne nga bëgg koo jënd bëgg ci benn nga bëgg a jënd léegi jabar loolu dafa baaxul sax baaxul sax déjà ci suñu sante mhm. baaxul mais may prévenir nag pour ñu wàññi ko bu baax. Mhm. parce que loo xamante ne baaxul santal ba ba pare ay complication waaw complication yu mu lay indil doo mën a xam ndax feebar yi léegi dafa bëri trop sax dafa bëri mhm. mhm. tam bëri bëri bëri boo xamante ne loolu jaaduwul daal te baaxul ci suñu santé waaw baaxul ci suñu santé waaye concurrence bi am si biir kër yi léegi fête bu jotee njëkke yi wujj yi goro yi ba gën si biir euh, koñ bi ba gën si biir réew mi ban jàngat nga ci eh, nga ci am. jàngat bi ma ci am moom loolu moom rafetloo ma ko. Mm-hmm. ndax fii ku nekk ak sa doole fu mu toll. Mm-hmm. mais da ngay dugg ci kër. gis kii doole nu mu toll ak kenn nu mu toll mais parfois da ngay gis nit ku am doole kii day jaay yoo xamante ni. Mm-hmm. mooy loolu te loolu baaxul ndax ku nekk sa doole li nga am. loolu nga mën a def ci événement. mais keneen ke nag waru koo xool ba gis que ne kay am na le bay dugg ci loo xamante ne mooy la wala def loo xamante ne mooy la parce que yéen ñi day dem ba indi rancune ak soxor yoo xamante ne da koo jarul ci benn jour boo xamante ne yàlla santaane wu ci loolu yëpp ñi kay nekk di def nii santaane wu ko wax dëgg fa yàlla benn mooy bu njëkk famille yi dañ daan booloo feet lépp ñu defandoo ko léegi da ngay gis ne kii ne sama jëkkër indi lii kii ne jëkkëram indi na lee donc man il faut mu yóbbu lale est-ce que tamit loolu di jigéen ñoo ci jëmbat benn concurrence boo doy waar boo xam ne ba tax famille li ñu meloon loolu daal deñ waaw foofu maa ngi fi maa ngi ak yow ndax loolu féewaloo lay indi sama jëkkër indi li wala diw indi li day mel ni du na wane loo xamante ne koo xamante ne daf sa néew doole kàttanam bëriwul néew doole mën a joxe loo xamante ne mën a euh, joxe loo xamante ne dina ëpp que ñeneen ñoom lu ñu mën a joxe mm-hmm. parce que da gis sa bopp mm-hmm. moo tax ñu war a jël loolu yëpp ñu ku nekk mën nga indi loolu mais ñoom ñëpp ñu tolloo wala ñu jox kii lii ne yow kat sax nañ la lii wala sax nañ la lii ci lay gën a mën a booloowee moo gën. mais phénomène phénomène phénomène yàq gi bu njëkk dañ daan togg ñëpp indi si penc mi ñu teg. Mm-hmm. léegi da ngay togg mbana sedd la mbana ba mu jeex <laughs> gone dese seeñu ga est-ce que loolu tamit. yenu na maanaam loolu tam yenu loolu yenu maanaam mais. tamit loolu aada la ndax fii la fii la fii la fii lañ ko fii lañ ko fii yàgg na fi daal. no bu yàgg bu yàgg mooy dañuy toog. dañuy toog waaw ñépp dajale indi si penc mi. ñu teg ibbi ndab yi ñu xéwloo ndoo. Mhm. mais léegi dañuy jël togg mbana. yàq ko ba mu jeex la ñuy bàyyi ci kër gi du matub palaat. jamono moo toll noonu instant bi jamono moo toll ba ci waa kër ñi nga war a njëkk a. moo tax ay penc ay penc yi dëgg boo gisee léegi yooyu amatul. am na kay. ah xanaa dëkk ah xaw ma fan la am de. non quartier boo dem. Mhm. am na penc waa quartier ba ñooy kër yi penc ma. ndax bu mboolooy daje rek fa ñu toog di waxtaan muy picc te foo def exemple tey mhm. sa koñ bi nga dëkk mhm. am na foo xam ne nit ñëpp fa la ñuy dajaloo di waxtaan mhm. tey bu ñu nee korte jot na ba tabaski jot na na ñu génne yàq yëpp indi ko foofu ñun ñëpp ñu bokk loolu mooy penc mi loolu mooy penc mi mais loolu dafa amatul léegi waaw lan moo tax amatul nag appartement yi appartement yi ak kër yi ku nekk léegi bokk sa bopp nga xam moo tax da ngay préféré di cibbal di cibbal di cibbal moo gën di jël en général di jël plateau wala dara di ko ñëw teg ñu koy bokkoo ci penc mais appartement yooyu xam nga dañoo nekk si réew moo xam mhm. jigéen ñi la est-ce que yéen tamit du ngeen xoolaat seen taxawaay <laughs> bul ne lépp lépp lépp lépp non non non ndax yéen boo ñu dugal woon si appartement ñun duñ fa dem déet xam nga tey da ngay fekk ku góor ñëw nekk kër bàyyam kër yaayam nga dee si noppam bàyyi ba xaaju guddi ba 4 heures du matin 3 heures du matin si noppa bi naan ko kër gi daa xatak am suñu intimité du la mën a toppatoo du ma la nanga ak nangam ak. ba tax non mais ma ñëw rek. Mhm. ba tax waa ji génn dem wuti est ce que du ngeen bàyyi mul mul nopp goo ngeen di def. mais ku góor gi moom war a am mat koo xamante ni kooku di ko war a mën a influencer wala di ko def loolu loo xamante ni mënu ko wala loo xamante ni mooy loolu parce que appartement yi léegi dafa deux cent cinquante mille boo ko amul te loolu la nga bëgg boo paree génnee dépense dafay metti du mën a du mën a du mën du mën a nekk léegi nag yéen nag yéen essayé xool seen bopp waxtaan ak seen jegenaay ngeen mën a toog ci kër famille moo gën ngeen déplacé déplacé du appartement boo xamante ne mooy loolu waaw est-ce tamit ñun bu ñu essayé xool suñu bopp est-ce que yéen tamit du ngeen essayer xool ki ngeen àndal li mu man ba xam man na ko am mënu ko. même bu ko mënee sax bët du yenu lu xel du yenu lu bopp attan xaw ma nu koy waxee noonu. waaw bët du yenu waaye xam na lu na lu bopp attan. léegi ko dee wala mu lii ba mu ñëw ne ko lii wëg lii lii wëg lii ba kooku nag dem def appartement dem jëli appartement loolu moom moo ko teg boppam jigéen ñi forcé wuñ kenn. Ah, ah en kay. forcé wuñ kenn man de ñi ñoo forcé ne damaa war a def cheveux cent mille <laughs> make up greffage dal mais yéen mais joxe toll sa lu bëri. ah yéen ah. yéen yéen di ngeen di joxe mais léegi moo nit ñi ñooy mottali suñu bopp. yéenay yi waaw yéen li ngeen li ngeen doon joxe. Hmm. joxeetu leen loo xamante ni tax na nit ki mën a yor kër gi wala gérer gérer kër gi wala togg ba mu baax wala jox sol ci ay yére yooyu la loolu gisatu gisatu. bëreetul léegi waaw xam nga góor léegi jigéen ñi ngay mottali lépp. soxna soxna Anita góor ñaa ngi joxe. góor ñaa ngi joxe nag mais joxeetu xam nga li góor ñuy joxe fa ngeen ko war a def ngeen ko defut d'accord na mooy déedéet xam nga fa ngeen ko def ngeen ko deful mhm. ndax buñ la joxee ne demal jënd ñetti ginaar sobleeg pompiteer rek maseeg jumboog xorom mhm. tag ak aju na moto bàyyi ko fa dem seet yi muy këpp kat ba jënd koy wex léegi jigéen ñëpp kenn foofu loolu yëpp li nga wey yooyu ñu jënd dafa ndànk rek mhm. li góor jigéen góor ñuy joxe ngir mu dem ci biir kër ga yéen léegi da ngeen koo jël defar ko seen kanam yi ba ñu ëpp ci jigéen ñi bu ñu génnee loolu la ñuy nuru non non déedéet loolu la nuru ah, loolu noonu <coughs> Gaynde Njaay. ah yaa ko tudd de waxuma ko man man daal waxuma ko. déedéet man moom jigéen ñi si bëree bëri li ñuy nuru <laughs> damay loo xamante ne mën na mën a tax ñun ñuy pose ongle. Hmm. wala di teg greffage wala di ñawlu ñawlu bu cher. Hmm. parce que génnee tooleen ngeen am rek ngeen ñëw joxe yow loolu loolu ngeen ko. Hmm. loo am ngeen ñëw joxe bañ na ba yéen li ngeen di joxe dépense. li ngeen di joxe dépense boo leen ñëwee ak li ngeen fekk ci kër gi sax du bokk parce que di xam ne que ni di nga xam ne que ni yow kii même boo joxee dara moom yokku na si deux fois plus pour mën a togg loo xamante ne nit ñi dinañ ko mën a lekk yéen da ngeen di jël seen poche rek loolu leen am day jot mhm. nga ni ku góor ki li mu am rek lay joxe mhm. nga gis ku jigéen ki jënd cheveux naturel deux cent mille make-up mu fay cinquante mille la mu def ca boppam daal lépp boo ko xaymaa cinq cent mille la teg ko jigéen ko xëyut yettut góor ci kër ga la toog góor ki di ko jox xanaa kon yéen li ngeen jox ngeen di koppati di ko condamné boobu tabaski feet jotee. ngeen daal di ko condamné wuñ ko de condamné wuñ ko. condamné mu ko condamné wuñ ko mais dañuy am parfois jigéen dina am ñoo xam ay yoo xam dañ koy may wala ay ay magam yu góor ak yooyu noonu nga jël ko du ñaax nga denc wala nga bokk sa natt mais natt yi nekkul c'est pas forcément que ni ci ci ci ci dépense hmm. ko. wax dëgg defoo ah, li ñu jàngat mooy feetu Sénégal moom. Mhm. jigéen ñi ñoo ci gën a yenu lu ñu àttunut loolu c'est évident sànq maa la ko doon expliqué nee la jigéen ak góor bokkul parce que góor day soofantal yenn yi te jigéen yenn yi du ko soofantal parce que co esprit concurrence moo nekk ci boppam. waaw est-ce que esprit concurrence war na mën a nekk ci bopp nit ba tax muy def naka si du noonu baa muy teg boroom këram lu mu mënul. moom moom laa lay wax nee naa la boroom kër bu ñu ko tegee lu mu mënul daa fekk loolu mu neex ko ndax loo xamante ni sa bopp attanu ko. Mm. waroo koo diggee ba koy def. Mm. loo mënul bàyyi ko noonu loo mën nga def. loolu moo gën. waaw phénomène tëj saison bi ak ibbi saison bi. <laughs> ndax da am ñoo xam dañ naan dawatina jeunes yi. loolu loolu moom laa dem ba yàgg dafa dem ba loolu dafa mel ni dafa dem ba mel ni dafa bokk ci Sénégal da ngay gis bu ñu nee suba la korité waa asafurlaa suba la suba la suba la suba la ñuy suba la weeru koor gi di jot wala suba la ñuy woon nga gis deux deux jours avant. nga gis nit ñi naan dañuy dem tëj saison dañuy def loo xam ne dem ci plage def def naka su dul noonu loo xamante loolu baaxul loo xamante ne baaxul baaxul doo xaar ba lu baax jot wala weeru koor jot ngay soog a ñëw naan waaw xaaral ma dem si jublu si lu baax suñu weeru koor gi jeexee nga demaat du tourner si lu si lu bon loolu. kon li fi bëgg laaj sax mooy. Mm-hmm. da ngay jël weeru lëmm fu ñu ne allah akbar mm-hmm. bala ñoo ne esso yaa naan rabbana wa lakal hamd. waaw. mooy jàmm yàlla gi doon ko respecté carrément. Mm-hmm. ñu ni koor gi jeex na. tey la fête bi nga ne noo bu ñu paree ngoyaan ba la ñu war a dem baa soirée waaja la ñu war a dem ba soirée nangam ba ba ba baa est-ce que tamit jotul ñu xoolaat suñu bopp ci ndax dañu nekk réew moo xam ne pom yi dafa ëpp doole dëgg-dëgg te pom yi 99 pour cent tey boo doon di ko génne. Mm-hmm. da nga naan 60 yëpp jigéen ñi ñoo ci dem. Mm-hmm. est que jotul tamit loolu ñu xoolaat ko. jot nañu xoolaat ko wax dëgg ndax loolu rafetul. rafetul loo xamante ne baaxul baaxul. Mhm. loo xamante ni da nga dugg da ngay dugg da nga ciy dugg soo paree nga xool dara lu baax nga ne ah lu baax li de jot na lu baax di jot na comme weeru koor jot na. Mhm. xaaral ma daaw gaaw seddal soo paree defaatu lu bon loolu jëriñul dara. Mhm. loolu yokk ay bàkkaar dong. loolu dong lay loo mais mais yokkul la leneen. benn ba mooy li des si li ñu des a bëreetu juróomi simili la. dañoo gis ne fête yi aussi tamit sa mbokk célibataire <laughs> yéen nga mënee tooñ. sa mbokki salbateer yi. Mhm. ñoo ci gën a sonn. Mhm. lu waral lool xanaa day jaayu am. ah ah bëgg bëgg bëgg jar bëgg jar. Hmm. ndax doo toog ba am parfois nga gis ay ñoo xamante ne ay 30 ans am 28 ans léegi ñoom boo leen defarul dina leen leen mën a xoolee. ba mu leen takk yow moom amagoo 20 ans am na. yow amagoo 20 ans garaawul sama âge. waaw ah. amagoo amaguma 20 ans. ñu eh, ñu may seetaan amagul 20 ans. <laughs> Hmm. waaw baax na mais façon loolu hmm. rafetul wax dëgg fa yàlla. rafetul rafetul. waaw moom da nga gis ne beneen bu aussi tamit euh, bu ñu ko dajalee. Mm. au lieu ñu def ko ci biir kër gi ndax kër da nga koy tàmm. au lieu def ko ci biir kër gi. Mm. lenn li ñu féetewoo célibataire góor jigéen ñi. même boo jigéen day nekk ci responsabilité papaam ak yaayam. ba heure bu ñu ko mayee jëkkër mu mm. soog a dem mais célibataire bu góor moom la yenn war dem daani dooleem ñëw indi bu papaam defee mu def bu papa bu papaam deful mu def kon nag célibataire yu góor yi Anita nee na ngeen bàyyi dàll yu seer yi ak jaget yeeg jiin yi. ak mooy tooñ de. <laughs> da jël di ko dugal ci biir kër gi. ak mooy tooñ soxna Anta daal ñu ngi lay sant di la gërëm. Euh, waxtaan wi am na solo waaye li may wax faral di wax naan li duuf si nag wi xaju si cin li. Mm. li ñu war a wax si feet ak li ëmb feet bari na lool waaye li ñu mayoon ci waxtu mm. moo mat bu ko defee dañ bàyyi rek nga joxe sa kàddu gu mujj. Euh, di wax que ni euh, korité bi ak di événement bi nañ ci def nànk ndax benn jour dong la. Mm-hmm. te benn nga yàq loo xamante ne euh, lii la wala def noo xamante ne mënoo ko wala teg sa bopp coono yoo xamante ne mhm. soo paree doo xam fan lay mujj mhm. parce que baaxul di ñuy ñëpp di jaajëfal ñëpp à la jërëjëf soxna Anita jërëjëf mbokki internet Dakar 24 info lii leen leen ni indi lool ci seen euh, plateau spécial Korité di soññaan ñëpp rek ni ko soxna Amita Anita waxee benn fan la béggalal seen njaboot waaye bu ci def loo xam ni ëllëg da indi indil ay jafe-jafe bu ci def loo xam ni boo tëddee doo nelaw def li nga man wax li nga man soo tëddee nelaw beneen fête beneen plateau spécial jërëjëf jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf